ami internet Dakar live nuyu nañ leen dal leen ak jàmm suñu xew-xew du jour ñu jukkil leen li gën a fees ci actualité Sénégal mu nekk les actualités le plus marquantes ci journée bi dañu koy dooree ak doomu jàngoro bii di coronavirus ginnaaw bi mu fëlee fëlee ca réewum Chine daal dugg si si dëddug Afrique sonal li nga xamante ne nii moo di àdduna wërngal këpp Sénégal di gën am ay cas yoo xamante ne nii ñu ngi tëdd ci bile feebar di Covid 19 ba tax na jamono ji ñoo ngi si 87 tests effectués benn patient boo boo xamante ne nii tane na ñu am ñaari cas yoo xamante ne nii dañoo grave ba tàggatee mais jamono ji ñu am vingt nouveau cas yoo xamante ne ni ñoo ngi tëdd ci bile feebar di Covid 19 cinq cas yi nag dañ koo importé maanaam dafa jóge fële ci extérieur ñu am quatorze cas yoo xamante ne nii contact suivi la dañ leen wàll te ñi leen wàll xam nañ ko un cas issu de la transmission communautaire la ñu am tamit mu waral nag Sénégal fi mu toll nii mu ngi si cent soixante deux cas positifs cent trente deux cas sous traitement vingt huit patient yoo xamante ne nii tane nañ loolee waral spécialiste yi nga xamante ne nii ñoo yëngu ci bile feebar di Covid 19 di wax ne Sénégal ci 12 jours yi toll na ci li nga xamante ne nii moo di 73 pour cent ci bile feebar di Covid 19 ñu ñaan yàlla rek mu yemale ko file. ba tey ci Covid 19 bi la ñuy desandil waaye ñi nga xamante ne nii ñoo ngi def pour la bonne cause ku ci mel ni Babacar Ngom Sedima daal dee lambu poosam yëkkati lu toll ci 100 millions suñuy koppar jébbal ko état bu Sénégal famille religieuse bi fa nekk daal di nañoo joxe lu toll ci cinquante million si suñuy koppar état bu Sénégal ci bile feebar di Covid 19 xalif général des Mourides moom sëñ Muntaxa Mbàkke di woy di wane boppam moom it tamit ci bile feebar di Covid bu ñu sukkandikuwee ci professeur Seydi ay bernde la yëkkatiwaat may ko malaat yi nga xamante ne ni ñoo tëdd ci bile feebar di Covid 19 te nekk foofee ci hôpital Fann ci noonee professeur Seydi di ko remercier moom mile di xalif général des Mourides ci acte yi nga xamante ne moo ngi koy def. ci bile feebar di Covid ginnaaw loolu ñu wax ci docteur Moussa Seydi nekk chef des maladies infectieuses fële ci hôpital Fann moom nag dafa yëkkati ay kàddu di wax li nga xamante ne ni moo ko tiital ba yóbbu fitam jamono ji mu di situation bi Sénégal di dundee jamono ji sat su ñu suñu wooy rek di gis yeneen cas yoo xamante ne ni mu ngi gën a takku file ci réewum Sénégal donte am na ñoo xamante ne ni ñoo ngi tane ñu leen di faj file ci réewum Sénégal ba tax mu yëkkati ay kàddu ci journal bi la di populaire di xamle ne loolee moo yóbbu fitam bay xamle ne sax dans quinze jours mën nañu xaarandi lii di confinement général file ci réewum Sénégal te loolu bu amee bu mu doon lu bett kenn ndax li nga xamante ne ni moo di musiba bi laqasu si bi la feebar di Covid mooy cas communautaire yi nga xamante ne ni am nañ ko fële ci réewum Sénégal di ci gis seen bopp te yooyee kaa nga xamante ne nii moo gën a grave si situation bi nga xamante ne nii Covid 19 indi na ko ci àddina wërngal këpp. bile feebar di Covid 19 laay desendil ba tey waaye bile yoon suñuy mbokk politiciens yi nga xamante ne nii depuis Covid 19 bi taxaw askan wi ñoo ngi laaj ñoom lan la ñu def ci bile feebar di Covid 19 bu weesoo wax ji nga xamante ne nii ñoo ngi siy wax maire bu commune Pikine Nord di uyoo ci turu Amadou Diarra moom xamante ne ni mu ngi ko doon def foofee ca marché zinc par la suite muy distribuer ay gel antiseptique waaye ci gel yooyee dañoo gis ne daf see personnalisé li nga xamante ne ni moo di photo di xamle ne maire de la commune Pikine Nord ak son maire ñoo joxe yile gel nga xamante ne nii ñoo ngi ko doon joxe si nettoyage boobu mu ameeloon ci marché zinc bind si daal pour se faire remarquer ci jamono boo xamante ne ni nit ñi ñëpp ñoo ngi xeex pour l'intérêt commun maanaam jógee fi li nga xamante ne ni moo di bile feebar di Covid 19 am ñu si pour profité di ci politique waale li nga xamante ne nii moo di seen bopp mu doon nag lu doy loo xamante ne nii nit ñi dañ koo ñaawlu ba fu ñaawlu yem ci suñu nit ñi nga xamante ne nii ñoo njiite réew mi wala sax ñooy def li nga xamante ne nii moo di politique file ci réewum Sénégal ba tey seen xew-xew du jour ngeen koy amee file ci Dakar live imam et ulema yi nekk file ci réewum Sénégal ñooy ñaawlu ignoré bi ñu leen def ci audience yi Macky Sall di amal ak ñenn ñi askan wi nga xamante ne nii ñoo nekk file ci réewum Sénégal Diène nekk seen secrétaire général de l' association ba moo xamle li ni mel ca RFM muy xamle ni imaam yi ñoo njëkk a joué rôle sentinelle ci bile feebar di Covid 19 waaye ñoom la ñu njëkk a écarté bu dara desul lu dul gisee ak ki nga xamante ne ni moo di njiitu réew mi ci force Covid 19 bi nga xamante ne ni moo ngi koy ootee ak ñenn ci askan wi mu mel ni imaam et ulema yi nekk file ci réewum Sénégal kontaanuñu benn yoon ci le président Macky Sall audience yi nga xamante ne ni moo ngi koy def di gisee ak ñenn ci askan wi Maimouna dañu leen écarté te ñoom ci la ñu bokk bu loolu weesoo dañuy dugg ci l'observateur mi fësal faux médecin bi ñu jàpp ci bile épidémie du coronavirus di wuyoo ci turu Ahmadou Samba moom nag journal bi dafa def enquête bu doywaat ci moom di wax ci li nga xamante ne ni moo di jaar-jaaram scandale yi nga xamante ne ni daan na koo def ba tax na mu ñuy xamal ne même bi mu nekkee étudiant la commencé woon doon déclaré boppam lii di médecin yemul foofu da daan jege beau frère Macky yi nga xamante ne ni nga xamante ne ni moo di ay njuut njaaj di jaaxal journal bi nag moo di document complet yi nga xamante ne ni Samba mu ngi koy doxantoo ak CV bi mu yore fu mu ko jëlee ginnaaw bi mu bokkee ci membre bu convention des cadres APR te jëwrin gi yor wàllum wérgu yaram bi fi la ci réewum Sénégal di Abdoulaye Diouf Sarr jiite ko waral saa si tembe ñu teg ko loxo ngir mu indi ay leeral ak lan la jublu ci foo médecin boobu muy déclaré boppam te nekku ci lenn moom mi di Ahmadou Samba suñu xew ndarkeppe ak live yi nga xamante ne nii ñenn si suñu nit ñu siw ñi ñu ngi koy def ci période Covid 19 bi nga xamante ne nii kenn du génn ci guddi gi si seen page Instagram yi waaye ñenn ñi tamit di ci def li nga xamante ne nii moo di réglement de compte ci période boo xamante ne nii ñenn ñi échange la ñuy def ak seen fans yi ku ci mel ni Betty bu pot et Marichou mi dal ci kaw sénégalais yi ci live bi mu doon amal ci page Instagram bi ginnaaw bi nga xamee ne nii benn fans moo ko énervé ci noonee nag doon ko poser ay questions. yoo xamante ni nii ci melokaanam ak yenn rôle yi nga xamante ni ñu ngi koy jox ci Pod et Marichou ci noonu nag mu dal ci kaw askan wi nga xamante ne ni ñoo di Sénégal di xam xamle ne Sénégal dund fi lu metti la ndax sénégalais yi dañoo soxor du ñu dem keneen du dem ci noonee nag live ba dal dee mujjee jaxasoo ndax ku ci nekk ci fansam yi rek wala ci sénégalais yi danga koo yàq li nga xamante ne nii moom nga ko xamal moom milieu di béti mu mel ni yooyee live yenn saay mu neex ci ñenn ñi nga xamante ni ñoo nekk file ci réewum Sénégal mbokk yi jàmm jàmm ki nekkoon ci waxukaay gi Ndiémé Ndaw